Jazboul Mouride au service de Mame Cheikh Ibrahima Fall. waaw ndigal li ma waxoon. ko liggéey bii mu doon taxawu Thiès. ak liggéey bi muy taxaw muy salle bi si kër gi te ànd ko waa kër maam waa alali maam Cheikh Ibrahima Fall. waaw jot naa ko ndigalul sëriñ bi nee na. nu nu liggéey ñaari liggéey yooyu ñu tegandikoo ko. te dem àggale ji liggéey bi nga xam ne moo ne Mbàkke. xanaa wax naa leen ne leen lépp lu ngeen lu ngeen saytu na ngeen ko joyal jëmale ko sa liggéey bi nga xam ne moo nekk sa mbàkke waaw te seenum yëngatu euh, gën a jëm si wàllu karo euh, lu jëm ci wàllu karole bâtiment yi lépp lu nu am ci karo rek ñoom lu nu am daal nañ ko dugal si wàllu karo loolu ndigal loolu jottali naa ko ko ba euh, moog alal imaam Cheikh Fall am nañ ci mbégte lool wax ne ñoom yow rek lañuy ñuy déglu foo leen joxoñ rek foofa lañ jëm te bëgg rek lañu ñu dàkk moom la ñu topp fas nañ yéene defe ko noonu nga xam ne noonu lañ ko sëriñ bi digale jërëjëf nga ñaanal leen faal ba atté na ko noonu jërëjëf Fall déglu nañ digal li ñi ngi fas nga yàgg fi te wér waaw ñi ngi ñaan nga kàttanal nañ nag lu fay karo rek ñu indi ko nga kàttanal nañu lu fay karo rek ñu andi ko ñun àlli seeral bi waaw loolu ñaanat nañ ko yow dégg nga ñi ci fas na nga yàgg fi nga nangu fay yàgg ba fekk lépp ba mu àgg nga jëbale ko di yeen ci barke Cheikh Rafal jërëjëf Fall. ak sëñ bi di jottali ay cant ak i ngërëm ñu jëm ci sëñ Amar Seck ak mboolem mbaa alali maam Cheikh Ibrahima Fall ba mu xamee ni mboolem ndigal yi nga xam ne bàyyi koo fi bàyyi na fi moom ak si fi yéen sëñ bi wax ne ndigal yëpp dafa ngeen ko noo xam ne ñu kawe njortam la ba sa ndigal lii mu lii nga xam ne mooy saal bii mu doon liggéey lu mu leen doon liggéeyloo fii si kër maam Cheikh Ibrahima Fall te jublu si ah bu gan lu fi ñëw man fa man fa di fa dal ba ba ñu mën a agsi sëriñ bi wala si koor gi kilifa yi di fa man di yenn soobu ngeen si soobu moom àgg fee lépp gis na ko te xolam sedd na si bu baax a baax waaye sëriñ bi am ndigal lu yees loo xam ne dafa bàyyi si moom rot jëm si taalibe yëpp waaye jëm si yéen ñi nga xam ne yéenay alali maam Cheikh Ibra seen sëriñ bi wax na ne liggéey bee sa mbàkke da nga xam ne daa am ndigalul soññeewaat ko te am yéene yi mu àgg ma mel na mu war a mel nu jébbal ko Cheikh Modou Mountakha moom de dafa bëggoon mboolem liggéey yi mu joxe woon fi barab rek mu tegandi ko jublu sa liggéey boobee jëmale fa sunu yitte yëpp ak sunu doole ba mu àgg mu soog a jubluwaat si yeneen liggéey yu mën a doon lay sababu yéen wa alal imam Cheikh Raye Fall sëriñ bi wax len wax ne ndigalul ties ak ndigal li ci Touba neena ngeen tegandiko te dajale nak seen doole jep ak seen jep jëpp ni ko si liggey bi nga xamne moy liggey ba sa mbacke wax ni lam mu leen féetale nag mooy karo yi moy karo yi lepp lu ngeen ci man ngeen nek sa def ko ba képp ku ngeen sa fek wala ku leen sa fek ngeen and ko mom inshallah